الله من كل كريم أكرم من آمه قلد لهم تكرم waxoon na wax ni mbégte bi ma am bi ñu am bi ma am ci moom moom la commune Dieuppeul Derklé am ci moom moom la Sénégal am ci moom moom la àdduna am ci moom ndax fépp foo xam ne doomi Kastoor Dieuppeul Derklé moo nga foofu rek bég nga ci ki nga xam ne mooy Mbaye Babacar Sadikh Bèye lan moo tax nga bég ci moom yemul rek ci màggal mu ngi ci màggal yi mu ngi ci gàmm yi mu ngi ci tamxarit mu ngi ci tabaski mu ngi ci korité mu ngi ci nawel mu ngi ci jumaa yi mu ngi ci jàkke yi mu ngi ci église yi mu ngi ci jeunesse bi mu ci troisième âge ba ci biir màkk am na ñu mu yóbbu siyaar ji Seydunaa Muhammad kon nag loola du du guleet maanaam mu jël ay bus euh, maanaam joxe ko ñu dem siyaare euh, euh, ji gi nga xam ne mooy Cheikhul Khadim suñu yaakaar fii ak fan jëm. masalan loolu moom ba mu ko tàmbalee ndax moom ma ñu ngi ko fal septembre 2017 xam nga 2016 su ma juumul waaye boobu ba léegi mu ngi jàppale jógul ci jàppale commune jëppal Derklé ci événement gu mu mën a doon mooy li événement yi ma fi lim lépp saa su ne daf leen di jàppale ren nag dafa ala daw dafa gën a jàppale commune Dieuppeul Derklé macha allah rabbi loo xam ne da ko daan def benn ñaar ñett ren mu jël 17 bus jox ko commune Dieuppeul Derklé ngir jàppale murit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi waxuma la murit yeeg tijaan yeeg xaadir yeeg laayeen yeeg ñëpp dugg ci biis yi ngir ñu dem ci màggal googu di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax man mii di wax ak yéen daayira bi nga xam ne moom la ñu gérer daayira booba ma nga bokk ci daayira boo xam ne macha allah rabi dafa nekk ci kër monsieur le maire di Cheikh Guèye waaw mais daayira bi ñëpp danoo ànd ak DG moo lay woo danoo ànd ak DG ndax kat màggal tubaa ku la wàccee biis dafa mel ni mu jël lu dugal la àjjana màggal tubaa ku la wàcceel biis xam na ni biis dafa seer waaye ku la wàcceel biis mu ngi mel ni wàcceel na la lépp kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla sax ànd bi nu ànd ak moom nag teyit it ñoo moom ci kër di nëbbatu wala nu ànd ak moom ànd bi nu ànd ak moom day dëggu ci ñun. ndax tey jii ba commune bi di commune ba léegi en 1996 amuñu benn responsable bu mel ni DG mënuñu ko génnee ci commune bi ci jàppale population jëppal derkele ci ordonnance yi ci ngénte yi ci dëj yi korite korité tabaski ci lépp li nga xam ne rek population jëppal derkele da koy soxla rek DG mu ngi ci xar tànku tubéem di ko def yàlla na ko yàlla sàmm ànd ak soxnaam madame Bey ànd koog moom damay wax ni sa grand homme il y une grande dame derrière lui et madame Bey est une grande mu ngi koy jàppale ànd ko femme club de euh, GSE ñëpp ànd ak moom di jàppale borom kër ñu ngi koy ñaan yéen bi nga xam ne yéen nañ ko mu nekk ci port bi yàlla na woyof tool ci kawam. mesure barrière yi dañuy ñaan yàlla macha allah rabi masque yaa ngi nii moom macha allah rabi joxewul buus rek yem ci dafa joxe biis teg ci ay mag ça veut dire que bëgg nañu respecter mesure barrière yi comme ni ko président de la république waxee comme ni ko ministère de la santé waxee comme ni ko sunu yaakaar xalif général des mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha Al Bachir. daal di koy waxee ba pare daal di jëfee ni ni men ndax sëñ Muntaxa ku ko xool gis nga ko mu takk maskam kon murit ñun ñëpp ñuy dem na nu wëyee ci ndigal xool ci sëñ Muntaxa jàppale président de la république respecter mesures barrières yi ñun ñi nga xam ne DG moom la jox na nañu bis bu ñu demee na ñu respecter mesures barrières yi raxas suñu loxo ak saabu. à distance d'un mètre ñu respecté ko mooy mesure barrière yi daal di takk suñuy max nag bu ñu nekkee ci waañ wi bu ñu nekkee ci ëtt bi bu ñuy sikar fu ñu mën a nekk tamit bu ñuy jaayante di liggéeyal Sëñ Tuubaa nañu respecté mesure barrière te xam ne pandémie bi mu ngi fi jóge fi te it ñu jeunesse bi ñoo mën a protéger mag ñi nga xam ne parce que pandémie mag ñi la gën a sonnal hmm. kon nag nañu respecté mesure barrière yi di santaat yàlla tey julli ci Seydina Muhammad am mbégte mu rëy xanaa damay waxaat ndax ki nga xam ne mooy sama ñooñ gi fi jóge sànq mu kabaro wax ju rafet yëpp wax na ko waaye daal du mënta ñàkk ma sànni ci samay kàddu fan yii sama yaram neexul waaye Ababacar Sadikh Bèye lépp loo xam ne woote na ko man damay mel ni ku ñuy pikiir ma jóg taxaw ci mbooloo mi mën a wax li may wax. am naa mbégte am naa contentement ndax moom Ababacar Sadikh Bèye lii mu def nag man bettu ma bettu ma waaye sigil nanu sagal nanu ndax boo xoolee fii ba fële kaar yi nga xam ne moo fi taxaw mu mettre ko à notre disposition te ku ci nekk mu lu toll ci 17 jusqu'à 19 car car bu ci nekk nit ki dana ko garder pendant 4 jours car yoo xam ne c'est des cars climatisés mu jox ñu ko am yu mu ca taftal teg ko ci santaat yàlla nit koo xam ne seetaanuñu ci dara bi mu ñëwee ci gox bi ba léegi du tabaski du korité du tamxarit du gàmm du màggal du pak du lenn foo yëkkati rek li ñu naan marquage à la culotte moom daal bu nu nee junn rek mën na tëll ci suñu kaw te ne mi dalee ci suñu kaw nag mbégte la ak bànneex li may waxaat rek mooy di fàttaliku doy di fàttali doomi gox bi di yeewaat doomi gox bi parce que nag du ma ne sax dañuy nelaw wax dëgg yàlla ndax gox bi ku ko xam-xam ne gox bu civilisé lañu gox bu xam seen bopp la waaye nag dafa am koo xam ne ay jëmm yoo xam ne rarement la ko yàlla di séddale bu nu ci yàlla cëre cëralee ñun ci commune bi nanu xam li yàlla sédd ñu téye kook suñu fukki loxo. yàlla dafa def ki nga xam ne moo njaboote di Ababacar Sadikh Bey bëggul kuy tudd som bu engagé woo ci dara nit ki mën naa xool rek xayma ci bëtam xam ne lii ay millions lañ ci def waaye moom ndax million mu ko def da koy jaral ba nga xam ne te bëggul sax gis nga lii ñu taxaw di wax bu doon sagom duñ ko def moom day bëgg di def ci suuf waaye nag nun ñi nga xam ne ñoo fi nekk nekk ci commune bi mu nekk suñu kilifa nu koy ndamoo bëgg nañu paa bu mu def ñu wane ne kii mi ngi def lu mel nii. ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydouna Mohamed. di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te am wér di ñaanal soxna Bali Muntaxa yàlla na fi yàgg te am wér soxna Bali yàlla na fi yàgg te am wér ñi ngi ñaanal nag DG port bi nga xam ne Ababacar Sadikh béy yàlla dafa def mu dëkk ak ñun nekk Castor bépp mouvement boo xam ni waa Castor rek ñi ngi koy def muy religieux culturel lépp lu ñu sumb rek mu dugal ci loxoom ñu bénéficier wu ci nag en tant que dëkkandoo en tant que doomu Castor lépp loo xam ne mi ngi jëm Touba tey ci màggal gii bus yi taxaw mu jël lu nekk def ko ci ñun waa Castors ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla suturaal yal na ko yàlla taxaw lépp loo xam ni mi ngi koy def ci Castors yal na ko ko yàlla fay ci barke Seydouna Mohamed waa Touba kontaan te Tiwaawoon tamit nii la koy defee leneen ak leneen noonu bus yëpp a ngi taxaw bàyyi faal yeeg ñëpp a ngi taxaw kon nag ñun mënuñu fay Ababacar Sadikh Bèye dañu kontaan et fier d'avoir un homme comme Ababacar Sadikh Bèye fii ci Castor ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm lu mu mën ren bu déwénee yàlla na ko yàlla defal mu mën lu ko ëpp ci barke Seydouna Mohamed ñun daal ñu ngi koy kalaameeg Serigne Bamba Sëñ Touba la am moom la ñu yaakaar moom la ñu doyloo yàlla nu ko sëriñ Bamba fayal ci barke Cheikhul Khadim alal dafa sax ci xol ki ko jël di ko joxe kooku amoo fayam bu ko neexoon denc ko mbaa mu viré ko ci ay compte kenn du ci xam dara waaye lu mu am bokk na kook jaami lu mu am jox na ko jaami des ak suñu borom ñu koy ñaanal ma dem Bey yal na leen yàlla jàppale. ñu ngi koy ñaanal en tant que dëkkandoo ñu ngi koy ñaanal en tant que. ndijaay ñu ngi koy ñaanal en tant que papa ñi ngi koy ñaanal en tant que jarbaat li mu bëgg moo ko xam ak le président Macky Sall mi nga xam ni moo ko dooleel ndax Macky Sall lu mu defal bee ñun la ko defal vraiment ñun sentir nañu ne vraiment Macky Sall jàppale na ko tey Macky Sall tamit yàlla na ko yàlla jàppale ndax nit ku nit ki jàppale ki nga xam ni moo lay jàppale kooku da nga koy ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla jàppale premier dame ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale yàlla def ñu dem ci màggal ci jàmm ñëw ci jàmm kaar yi nga gis nag kaar bu mu teg def na ki disposition yoo xam ni yu mucc ayib muy lan kaar dina am gel yaa ngi ci kaar yi kaar bu ñu joxe joxe nan ay masque yoo xam ni ñëpp am kaar yi c'est climatisé am ndox macha allah ñu leen di ñaanal pèlerinage boo xam ne bu mucc ayib ñuy ñaan nag ci màggu yàlla ak mbaaxu yonent bi ci barke maam Cheikh Ibra Fall mi ñu yaakaar. barke Serigne Bamba mi ñu yaakaar coronavirus yal na fi jóg ak bépp àdduna fu mu nekk yal na ko fi yàlla jëlee ci barke Cheikhul Khadim amuñu lu ñaan ay julit leen virus yal na fi jóg ci barke Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lu waay doon def ci lu baax nan ko yokk lu waay doon dimbali nit na nga ko yokk lu waay di def na xam ni boppam la koy defal. Ababacar Sadikh Bey euh, def ñu sécuriser boole ñu ak ay professionnels. mooy waa Sénécartour di waa Kosolak nga xam ni bu ñu euh, daaw ak daawaati géej bañ duggee si bis bi on est à l'aise dinañ nekk si jàmm ba nu ñuy yeggee fu ñu jëm waaw mu doon ñoo xam ni lu ñuy dawal ñun wóolu nañ ko te dinañ ko teg si temps waaw ndax moom dafa nekk si commune bi am loo xam ni euh, bu demee ba kay ba kay ba kay ba kay kiiw ak ay ay ay nitam daf si nangoo def poosam def si li nga xam ne moom mooy nit ki dina ko yëg waaw mais joxuñu Ndiaga Ndiaye joxuñu rapide waaw lu mu ñu jox moom ñëpp gis nañ ndax toog tegle sa tànk di naan café Touba muy sedd ba ba Touba loolu moom DG Babacar Sadikh Bèye rek ko moom professionnel di la dawalal nga tegle sa tànk waaw kon dañ koy sant di ko gërëm rek. dañuy d'abord dañuy rafet lu lu directeur port bi def muy euh, dëkk euh, monsieur Abou Aboubacar Sadikh Bèye ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. parce que ci mbirum sëñ Touba moom léegi képp ku ci suñ si wootee moom képp ku ci dugal sa loxo rek maanaam nekkul ñu ñoo lay fay yàlla lay fay loolu bu njëkk la ñun tamit dañuy def lu dul di ko di ko di di ko sant di ko gërëm ndax tey lii nii ay nit yàgg nañ nekk ci commune bi dañu ñu pro di ay bus ñu dem ba ci cëppaandaw gi te duñ ko am ren suñu demee ba tey am bus bii nii ñu ciy sant di ko ci gërëm bu baax a baax loolu noonu tamit tey dañuy comme mesure barrière yi ngeen a wax nii tey tax na tey ñun man mii nii avant ñu may jox masque yi masque yi nee naa leen ku nekk muy balaa may ñëw soo mënul indaale sa gel na nga indaale sa masque parce que tey même bu dul lu lu lu euh, dëgg monsieur sa Sadikh wax sax ndigal bi sëñ Mountakha moom la joxe muy suñu sëriñ di suñu wasila donc ñun murit te xam nañ nga murit len rek le mooy jëfe ndigal jëfe ndigal boobu taxi moo tax même bu si ñoom suñu joxul masque sax ñun bu boobaa balaa ñuy ñëw incha allah dinaa indi indiwaale suñu masque te ku nekk dina respecté mesure barrière yi incha ñu dem màggal si jàmm ñu si wax si jàmm alors pour préciser c'est c'est exactement 17 bus 17 bus que monsieur le DG du port a mis gracieusement à la disposition des pèlerins pour en partance pour le grand magal de Touba Donc ce n'est pas une première, c'est la troisième fois consécutive que M. Bey met des, des, des, bus à la disposition des, des, populations et donne des appuis financiers pour les daïres qui, ont déjà, qui se sont bien organisés et qui ont déjà des, bus à, à, leur disposition. Donc euh, nous remercions profondément monsieur Bey pour ce geste de haute facture. Euh, c'est inédit, c'est une, une première dans la commune depuis... Euh, depuis que nous sommes là, nés à Dieuppeul-Derklé, ce geste de haute de M. Bey, vraiment, c'est inédit. M. Bey n'a pas simplement de, mis euh, à la disposition des populations des, euh, des, bus simplement. Il les a fait accompagner par euh, les, les, les, produits, les produits préventifs, notamment des masques. Nous avons distribué pour chaque bus en partant pour Touba des, des, des, suffisamment de masques pour leur dire de, respecter les mesures barrières une fois à, à, à Touba. Allahumma kulli karimin akram